siyaare bu baax di leen nuyuwaat bu baax a baax a baax di santati rek comme ni ñu ko daan defee di leen wax ne tey nag fii waa centre Serigne Sidil Muxtaar ñu organisé woon benn safar safar si Ahmad Bamba Xaadim Rasul eh, di sant goo xamante si nii daanaka dañu xëy di gën a sant rek waaye sant gi moom mënu koo fay. 2017 dafa naa lañ ko commencé ba ren kon dañu ñaanal suñu borom fee teeluwaat ay déwén déwén di gën a santaan bu baax a baax ndax am na mbégte bu baax bi ñu yàlla teeluwaat fii comme ni nga ko daan defee ndax ko gis euh, mbir mi ni mu taxawee nii kon ñoo ngi euh, gis nañ si ak yokkute bu baax a baax te day ñaanaat suñu borom gën ñu sa yokk gën gën koo teewalwaat képp koo xam ne nii nag bokk nga ci bis bi man amee naa la ak cant di la sant bu baax di la gërëm ndax yaakaar naa lii nii ñu def dafa rafet ñu doon ay xale yu ndaw bokk fu ñu sàkkoo métier ñun ñëpp ñu dajaloo boole suñu addiya boole suñu xalaat yëpp mu doon benn ñu ne dañuy defal dañuy defal bis sëñ Touba. kon loolu lu ma rafetlu la te lii bu ñu ci kenn jëlee lii ñu nekk nii bu ñu ci kenn jëlee. te nag ñu ëlgu fi woon safar boo xam ne si ñu ngi ko daan def chaque année ñu koy def tey tey nag ñu ko cinquième jour safar bi voilà di ci di ci gën a sant bu baax a baax daanaka ñun ñu fi nekk ñëpp rek ay responsable lañ te ñëpp a yor ay i place ngir bis bi ngir bis bi di gàttandoo tamit suñu bis bu mag bi muy 18 safar di bisu màggal gi moom lañ koy gàttandoo. di santaat tamit ñi nga xam ne maanaam ñoo bokk liggéey bi muy centre Serigne Cheikh Sidil Moukhtar di 18 safar si juróomi fan bi nga xam ne chaque année nii lañ ko daan doxalee ak boole koog mbooloo mi xam ñoo bokk si si sant bi di ay téyeer di ay ndaw ñu nangu ko loolu dañ si santaat suñu borom baax a baax ndax tamit liggéeyal Sëriñ Tuubaa moom xol bu nangu dong dong dong moo ko man képp koo xam ne nii sa xol nangu wut doo bokk fu ñu liggéeyal Sëriñ Tuubaa Sëriñ tubaa képp koo nga xam ne nii jox nga ko sang ndaw mu teel la sang mag képp koo xam ne jël nga sang ndaw nga jox ko Sëriñ rek boo demee ba doon mag doo jaaxle ci dara waaw ndax gis nañ fi gis nañ fi ay mag ñaa xam ne ñoo daan liggéeyal Sëñ Tuubaa ñooñu ba léegi nii seeni sët dañ leen di sukkal di leen raamal lool nag firnde la nañ bëgg Sëñ Tuubaa ay gone lañ mais doon gone du tee bëgg lu baax waaw bul ne kiy jàng olofal dane bul ne mag laa te bul ne xale laa ak sant yàlla bawul ku am xel. bisu safar bii fu nekk dañ cee génnee saw ñaq ñu koy def di ci sant sëñ Bamba bu baax a baax. di ci santaan yàlla bu baax nag. voilà organisé wu ñun ñëpp kenn ku ne boole sa doole ñu lépp lañ boole rek daanaka xamee woo ki def ak ki deful lépp rek ngir sant ci Serigne Touba waaw di ci am contentement bu baax a baax baax a a baax daanaka mbooloo mi ñëpp a ngi fi kenn tëlul dara ngir bis bi ngir jëmmal ko di ñaan yàlla tamit ñu àgg ci bis bu mag ba defee defee ko ni nu raw niñ ko defee tey. dafa nekk mbooloo moo xam ne ni seen xol dafa ànd rek saa bu waxtu bi nuyoo rek day mel ne seen xol da daa nuyoo ñu bokk bokk li ñu bokk lu ñu di bokk la ñuy def ñii nekk bi amul kenn koo xam ne bokk ngaa sa morom daayira amul dër bu ñu koy tegal amul dara saa bu ñu waajalee safar bi rek sañuy door a dajaloo wax suñu soxla wax ko ni ñu ko bëggee rek moo mbooloo mépp fekk suñu ginnaaw man mi xam ne man def président nag moom motuma président dañ ma bëgg jiital rek ngir may may may wane yoon rek waaye man ku may gis xam ne moom motuma motuma président day moo dee xool samay jëwriñ rek ñoo fi nekk. waaw at biñ ko fi njëkkee commencer dañ ko def toogu ay bernde comme nii jàng ay kaamil wàcce ay kaamil. jàng ay xasida def def si karulaa ak yëpp ngoon jot ñu ñaanalante dem def nañ ko première année mu jàll ñu def ko deuxième année mu jàll bii mooy suñ troisième année te dañoo bëgg bii nii dàq yiñ daan def yëpp ndax yoonu sëñ Bàmba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am kon ñun kenn waruñoo jiitu ci sant sëñ Tuubaa parce que suñuy waajur wàjjoon nañ ak ñun parce que jàngal nañu la alxuraan ah yar nañ ñu fi ñu war a yare li des si ñun la li des si la muy ñu bëgg sëñ Tuubaa bëgg xës day sëñ Tuubaa yi nii loolu dong moo des ci adduna bi parce que fii lépp fi def lu dul liggéey sëñ Tuubaa rek wucci nga ko ñu nag a rëy mii muy màggalu Tuubaa ñun mbégte moom rek lañ am voilà daanaka ni waxee su à tout moment ñu may ree daanaka chaque jour da ngay dégg Sénégal chaque jour ñuy jàmbat ay dëkk bi daa metti dëkk bi daa naqari réew mi neexul nangam ak moom bu xasee rek bu ne réew mi réew mi moom daa belli daa mel ne daal day mel ne maam sëñ bi dafa màggal si indaale nañu xéewal goo xamante si ni daanaka poos yi day day diis gann gann gann gann di gën a sant mbooloo mi nga xam ne maanaam ñoo topp sama ginnaaw nañ den maa jiital topp sama ginnaaw wax dëgg yàlla maa ngi sant bu baax a baax rawatina suñu mbokki jigéen ñee ku si nekk yaa ngi sa kër te da nga sa kër ñëw bokk si liggéey bi ndax ku si nekk mën nga ne kat damaa yor doom wala damaa sama nijaay nangam wala sama bàjjan nangam waaye dañoo bàyyi lépp ngir sëñ bi bàyyi seen i place tëj ko ngir sëñ bi kon nag di sant ci Serigne di sant ci Serigne di wax alhamdulilahi rabil alamin waaw di wax ne alhamdulilahi rabil alamin yal na yàlla dogal ñu teew ko ay at yu bëree bëree parce que am na am na koo xam ne nii dégg naa da doon jàng dafa am xasida gum doon durus bi mu bi mu bi mu durus xasida gi ba faatu léegi bi mu faatoo ñu daal di koy ñu daal koy ñu daal di koy dugal ci biir bàmmeel ñu koy bernde maanaam xasida gi mu doon durus ñëw di ko bernde di ko bernde di ko bernde di ko bernde ba mu laajte man man kii may bernde kan la bi mu waxee kii may bernde kan la ñu ne ko xasida goo daan jàng xasida goo daan jàng biir adduna moom moo la indil bernde yi kon xasida yi sëñ Tuubaa yi lépp loo xam ne nii mënu ko rek amut maa ngi taxawlu foofu sama kàddu